këcëb nak bi da jëndal ki nga xamni moy xaritam hmm? nagu la jóoba gi ni ben ci nagu la ñaar la ah ñaar ndaysan Eh, ay waay lii ku ko yóbbu ay ku ko yóbbu boy boy boy boy boy boy monsieur ndax lii Lat Diop dina ko utiliser ci màggal gi léegi bu ci raam dafay ragal Lat Diop yëpp ko diwin laa ilaha illallah stttt dàqal mu jóg xale la xale bu ndaw la xale bu tuuti la peut-être déwén de daaw daaw de benn nga defoon tey nga def ñaar ñaar ak ay boisson ak ay ndox. dégg ma nga ne. daaw. benn rek laa def ci Lat benn. waaw mhm. nag. waaw ren def naa ñaari nag. waaw ak trente keesu boisson. canette ak cent cinquante pack ndox. la ilaha illallah. sant rek. nga ne. jamono moytul nag bi moytul nag bi. waaw tut tut tut tut. ko ci nag bi. mahrajan eh! mahrajan nag bi nag yar la. mahrajan mahrajan bi. laa ilaaha illallah. déedéet. xam nga lan Diop nag daa xam lu baax bëgg lu baax. mais sa digganteeg la Diop nag bu si yow da bu si ah. day jooy de day jooy de. laa ilaaha illallah maa la déggul nga ne. mais daaw boo nekkee numéro un da ngay ànd ak numéro un. mais daaw boo bëggee nekk numéro un da ngay ànd ak numéro un. suba daal day xam sa diggante la jub lan la. suba ñoo xam lépp dëgg la. waaye ba ma dajale li ma war a dajale ci moom ba pare. incha allah rabbi ma jébbal ko ko. laa ilaaha illallah. ati kon léegi kanam. ñu ngi leen foofu. Cheikh Ndiaye wax nga ko nit gaaw. non non Cheikh Ndiaye mi xam nga ne bii Cheikh Ndiaye mi jëndul bii waaye. Inshallah mbay waaw bii la jëm sama kër sama kër yaay yu am marqué daal yu am marqué bii dafa soxor xar yooyu na waxal yow bu ñu defee rek mën sam Sénégal bi li mu jar ah. Sénégal dañu xoolal beneen bu gën a yem. Sénégal Ndiaye nag muy jamono Sénégal bi. benn bal la nga ah Samba. ay Samba ñu dem. Këjëf léegi gileem bi. waaw. ñoo ko eh, daaw daaw benn benn nag nga ko yóbbul te tey nga nga jëndal ko nag ak gileem waaw sant xaadim rasul rek yàlla yonent bi mm-hmm. di santaat yàlla bu baax a baax mm-hmm. ci yonent bi mm-hmm. suñ ñaari waajur di wax ni ki may jox nag be gileem bi yelloo ko te ànd bu sincère moo tax ma ko jox. Mhm. ak mbëggeel la. Mhm. Mhm. waaw di ko wax ni mu siggi na sagu na doxal man Boucher Ketchup maa ko choisir muy El Hadj ko jëndal lii di ko jox ci màggal gi. te des na nag lii rek de. du gileem ak nag rek de. bu subaa bu ma koy wàccee këram nga xam ne lépp dëgg la. Mm-hmm. incha allah rabbi maa ngi ceeg sama papa ji nag. Mm-hmm. alaaji sàmm muy alaaji sàmm moom mi nga xam ne mooy sama njaatige biir Touba. Mm-hmm. mooy njaatige ñëpp de. su ma fi duggee. ci moom laa jubal si. lépp lu may def moom laa ko sant. mu nekk sama kilifa nag. ma ne ko daaw kat jëndal nga laat jóob nag wu rëy nag wu àdduna bépp di coow ren loo gis. mu ne ma daaw jënd nga nag. Mm-hmm. ren damaa bëgg nga jënd nag ak gilleem. <laughs> moom dégg naa bi mu koy wax ne ma. ren moom dama seetaan nga fa yóbbu nag rek. damay dama bëgg ren nga yóbbu fa gilleem. ma ne ko papa jëndaale naa ay boissons ay ndox de mu ne ma dollil gilleem bi. Mm-hmm. ndax loolooy sab sag ndax Lat Diop amoolu ko ëpp te amoolu ko sut daaw daaw wax ji bëri woon na trop. intérêt moo fa teg <laughs> ah su wàccee su wàccee su ñàkkee état bi nga daw. fim nek ni wacc wacc nañ nga gënal japp amna benn wax bu ma waxoon. Mhm. ne ñaanaluma ko Lat job ñaanaluma ko. Mhm. waye man Lat job mu baña doon dara sax lay gëna nek à l'aise pour and ak mom mhm. deug la ndax ci lay mëna def li mu bëgg def ci mom waye buy nekk dara sax damay xam. ñaa loolu nak mënul ne ndax ñaan na yalla doon leneen ak leneen. waye man man sama bop man sama jëmi bop mu bañ a doon dara moo ma gën a arrangé ci moom ndax li ma bëgg a wane ci moom sama kilifa la sama xarit la sama wëllëre la sama lépp la mbay Lat Diop ci moom sago moo xam la ko tey Lat Diop balaa ñu koo xam ci réew mii mu doon dara biir géejawaay barke Serigne Touba Mbacke bis bu Lat Diop téye maire géejawaay géejawaay mel ni Paris la France billaahi wallahi taalaay kenn du moom yàlla yàlla guddal fanam taalibi Serigne Touba la xaadimu rasul suba la suba. suba daal incha allah. Mhm. lépp dina wàcc buntu këram. Mhm. te di ngeen xam ni mbëggeel ak cofeel. Mhm. lu mu lalul lañ doxul. Samba ngi nii faram. mais Samba. Samba daf dina wax. Samba Ndour. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm. ñu ngi lay fay bu

musta def lu ma xamul musta dugg lu ma yëgul mhm. te lu muy def dana ma woo tàggu ma wallaay ndeysaan jox na ma cër respecté na ma xam na may kan mhm. te nit la koo xam ne ku man nitam la mhm. fonk nitam la ku ko xamul nag ci taam man nga foo jàppe beneen nit mais nit gënu ko barke xaadim rasul xol bu rafet la yor ndeysaan lii muy def daal dañ koy ñaanal mu gën koo man ci darajay ci jëmmi darajay Seydina Muhammad ak ci borom màggal gi jërëjëf Samba. dafa am ñoo xam ne dañuy jëf te duñ wax. dëgg la Samba. waaye yow am na foo yow mii sa te am na loo def. noonu solo. waaye ñi ngi koy ñaanal daal ci lii nga xamante ne waayam ji. ko mhm. yàlla booleel tem yàgg lool. mi la Diop. maa ngi ñaan ci darajey Seydina Muhammad yàlla na tënk ay nag yu bari du ko def te te nii mu koy defee mi ngi koy def ci yeneen kër sëriñ si moom mhm. joxu ko Lat Diop kese wallaahi wallaahi daaw taxaw jënd nag yëpp ci yeneen këri soxnay kilifa mhm. ak yeneen i kilifa noon la koy defee mhm. kon kii daal ñi ngi koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér mu gën koo man ci darajey Seydina Muhammad yal na ko yàlla def jërëjëf kon daan naa ci daal jërëjëf jërëjëf bu ñu indi problème mu tey bay ji kay bi. mooy benn dambal bàyyi ko rek. jënd na gileem. ak nag ak nag jëndal ko la ñu ne la gileem ak nag. waaw sa waay moom diggante moom la. ndaanaan la. Mhm. nit da ngay gëm nit. Mhm. nit da am personnalité nit da nga am dignité. Mhm. li am solo ba am solo rek mbay. bu si yàlla ko yàlla defal jàmm rek lañ koy ñaanal. ak fan gudd ak wér gu yaram. nag ak gileem nga jëndal ko sa nit. ne loolu mooy diggante. nit booy ànd moom doo àndak moom ci bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy nekkee ci dara uh-huh. nga ànd ak moom bi mu ba nekku ci dara ci nga sa ànd sax gën a a fës uh-huh. Uh-huh. waaw xaar ci ànd ànd liñ ciy gën a xaar mooy booy ànd ak nit bu nekkee ci dara sax ànd ba war te nekk dëgg waaye bu ñu bañ ne nekkul ci dara foofu la ñuy xaar ànd ba waaye am na solo trop jaajëf ba suba incha

Ah, sama lagi agak ag ag agilim ag, da Ya, indah. Gimana nih sering sëriñ Tuubaa teral na dia La 200 kok gini dia mau hobet hobet, ah gini tay nak. Hmm. <laughs> allahu akbar nag ak gileem ñetti nag ak gileem waaw xisef nag wax dëgg yàlla nag nag nag man man man man fi nekk nii fa fadam <laughs> mu ngi mu ngi tëj dëkk bi yaa ngi tëj dëkk bi nag de non yaa ngi teg dëkk bi la mu ndey. teg xaar dix millions ngeen di. <laughs> gëlëmaan jëbal xaaj samba samba nag wax dëgg yàlla nag man ni xamatuma ko dé léegi nag bi wala mbay mbay bul dugal xam bi waaye bu fekkente kii mi